asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki Dagana man la seen doom Mouhamadou Lo ñu gën ma xam si Vieux di coordinateur mouvement yaakaar takku soqali waalo te Dagana bokk si la conférence des leaders Diomaye président nekk vice coordinateur départemental comité électoral de Pastef ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp tey du ñu ñëw fii pour waxtaanee enjeu wu élection yi élection yi ban njëriñ la amoon suñu dëkk suñu réew mbokk yi su caaxaan jeexee dëgg des Sénégal mérité na ñu doxalee dëgg doxalee jub doxalee jubal doxalee yi ñu jëm dafa nekk élection yu am solo man gëm naa ni élection yi mu jaar ci Sénégal yépp depuis 1960 ba léegi élection yi ñoo si gën a am solo parce que dafa fekk Sénégal mu nekk ci guuta fekk Sénégal mu nekk si métit fekk Sénégal mu nekk ci ndóol yàlla defal nu jàmm sutura ba ñu fal am njiit yu bees ay njiit yi xamante ni seen loxo set na wecc ay njiit yu yaakaaru su ma wax loolu xel day dem ci kenn rek muy le président de république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ànd ak son premier ministre Ousmane Sonko l'infatigable ki joxe alalam def si dooleem tay la bakkanam sacrifier njabootam yépp pour Sénégal kon tey Sénégal ban taxawaay la war am si élection yi mbokk Sénégal ñii ñu leen jox jumtukaay ñu war a jox pour ñu yor doxal Sénégal jumtukaay yee lenn du si du lenn dul élection législative yi ñu war leen jox majorité à l'Assemblée nationale man dafa am sa yaqin ni waroon nekk sa à quatre-vingt-dix pour cent ñu mën a jubal jubbante yeggal seen yéene ci Sénégal je pense que loolu su ñu ko defee. dal leen mën évaluer pendant si cinq ans yii ñëw ñu mën leen laaj yéen projet bi ngeen tegal Sénégal yaakaar bi yaakaar ba ndawee am si yéen lan ak lan ngeen doon def je pense si c'est le contraire te du am Sénégal mooy ñàkk parce que tey su ay nit taxawee ni sa ngeen nu joxee majorité amu na leen nuy wax wul daan liggéey dëkk bi mais daanu bloqué dëkk bi kon kat xel yi war a taxawaat ñu xalaataat dëkk dëkk dëkk bi fan la jëm. nanu jox majorité bu mat sëkk le président de la république mooy Pastef jox leen ko mooy ndamu Sénégal mooy ndamal Dagana mbokki Dagana élection yi jëm nii fa la Dagana war jóg taxaw ba faw parce que projet bi ñu teg. ñii xeexaluñ pour seen bopp xeexaluñ pour seen njaboot mais Dagana lu nga xeexal et je pense vraiment que jot na tey Dagana delloo naar wi xoromam doomaan Dagana delloo naar wi xorom te mooy Dagana njël jël intérêt yépp tekk ci gannaaw te jiital Dagana Dagana mérite na ko Dagana soxla na ko nañu ànd tàppi xol ñu dem voté ji pour Pastef mooy njariñu Dagana à chaque fois damay wax Dagana Dagana dama xam Dagana rek fi mu toll ak Dagana fan la waroon yegg si jamono ji ñu toll kon voté Pastef mooy suñu sag voté Pastef mooy sagu doomaan Dagana yépp te Pastef woowuñu seen bopp woowuñu seen seen bëgg-bëgg bëgg-bëgg réew mi ñu woote ma gëm ni suñu góorgóor tuuti jàpp bañ bàyyi nekk benn dagan dina gis boobu baax a baax si politique bi pour une première fois dans l'histoire nanu ànd ak ñoom te wóoru leen ni soo ko falee da ngay te yàlla bu mu jox nguur rek am nu tax mu jox la ñi ñu fi teg yàlla moom la ñoom la neex suñu boom la doon neex mu teg leen kon tey nga weddi leen mooy weddi ndogul suñu borom te ñëpp ay ay ay jullit ci loolu ñun du nekk si benn mouvement boo xamante ne macha allah mooy le mouvement yaakaar takku soxali wàlla mu jiite ko mouvement bi di liggéey liggéey bu am solo si biir dëkk bi liggéey liggéey mucc ak ayib ak Pastef si biir Dagana bi amul foo xalaat si Dagana te mouvement Yaakaar ak Pastef taxuñ fa teg seen tànk pour sensibiliser nit ñi yee leen si enjeu électoral yi nekk nii jarul xeex jarul xuloo duñu jiital Dagana rek suñu kanam rek kese comme ni ñu faral di waxee rek donc lu ñu ñaan rek mag ñi di wax ni ñàq du réer boroom te boobu léegi te nu xoolee nelawuñu tooguñu jékkiwuñu lépp rek pour dem waxtaan ñoom te am nañu yaakaar ak yaqin bu leer ni Dagana moom on gagnera minimum ak quatre-vingts pour cent incha allahu rabbi parce que fépp fu ñu dem fépp fu ñu jaar wax ji benn lay nekk mooy Dagana duñu sonn. boobu léegi doon sonn te gisuñu ci te ñii lu ñu yaakaar bu dagg na jóg comme que ñoom ñoo ñu promettre ni daan defareel suñu yaakaar gi mooy tool yi comme ñoom ñoo ñu promettre ni daan fi indi usine loolu mooy jox ndaw xëy du palu nit mooy jox ndaw xëy mais nguur mooy jox ndaw xëy te nguur gi taxaw nañ pour jàppale Dagana fi may tëjee mooy woote jàmm ak salaam. xam ni réew mi ñëpp a ko bokk jarul xeex jarul xuloo dama am yaakaar ni ñi wut bu fekkee ni wut dëggal si ñoom Sénégal ñoo jiital muy bépp fu mu mun bokk daga li may woote man gëm naa ni caravane Pastef ak caravane Oumar Sarr war nu mën ndaje ñu nuyante joxante main dans la main xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ay mbokkal kenn waru fi sànni kenn xeer kenn waru fi sànni kenn kon message boobu laay woote di ko ñaan di ñaan suñu kilifa diine yi ñu ngi ñaan waaye noonu gën doon ñaan dëkk bi am jàmm te élection yi su si jógee mu nekk ndamal Sénégal mu nekk ndamal Dagana asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñépp ñëpp jërëjëf.